monsieur Ousmane Beye ñu ngi lay nuyu di la dalal yaa di suñu gan. maa leen di fay. yow économiste nga ak enseignant chercheur. monsieur Beye lan mooy budget état ak yenn terme de référence euh, yu mel ni cycle budgétaire processus bi ak préparation bi euh, bala ñuy euh, jàll ci parlement bi ñu koy adopté foofu. waaw budget mooy dëkk bu nekk wax dëgg yàlla da xayma di nga soxla ci at bi at bi di ñëw. Euh, ci ay euh, dépenses ay soxla ak yu demee mhm. parce que di nga investir di nga am sa sa mhm. fonctionnement salaire yi ngay fay. Mhm. yu bëri essence yi ngay jënd téléphone yi ngay kii ak yu demee bu ko defee nag da nga koy xayma euh, ministère bu nekk da ngay xayma say soxla ak wax fu suñ ko mën a jëlee ak yu demee ko defee kooku budget bi mi ngi commencé premier janvier. jeex 31 décembre. Mhm. mais balaa boobu dañuy waajal budget bi. Mhm. ay octobre déjà rek war nañu commencer waajal ko. Mhm. d'ailleurs sax ay ci dëkk yoo xam ne dañu am euh, ci seen parlement dafa am ñaari chambre sénat ak chambre de députés dañuy wax dañuy wax navette budgétaire maanaam bu jógee fii day ñëw fii jaabante jaabante ba ñu gis euh, euh, jaab juboo nest pas ñu soog ko ñu ñu ñu soog ah donc léegi bu ñu ko waxtaanee ci ministère yi ba état bi d' accord que conseil des ministres dañ koy jébal assemblée nationale. Mm-hmm. comme que ñun ñun suñu parlement benn chambre la am mooy assemblée nationale. Mm-hmm. dañ ko fay yóbbu ñu li ah, député yi dinañ ci liggéey nag ci commission yi. woo ministres yi ñu waxtaan ci et cetera. Mm-hmm. parce que cycle budgétaire bi aussi mooy day commencé premier janvier jeex 31 décembre ak ak léegi bu ñu ñëwee assemblée nationale euh, bu ñu paree ci ci commission yi. ba ñu d'accord ci yëpp mhm. dañ koy nag yóbbu léegi pour ñu valider ko en séance plénière mhm. séance plénière mooy fi nga xam ne ñoom ñëpp moom lañuy gis ci télévision yi lu bëree bëri mhm. commission yi sax kenn du leen gis te fekk na nag liggéey bi yëpp ci biir commission yi la mais euh, commission yi day tàng dañuy dañuy waxante di jàppante di kii mais bu ñu ñëwee nag euh, bu ñu paree ci dañ koy indi euh, en séance plénière ñu ñëw ministres yi taxaw défendre seen budget wax li ah. da nga da nga député laaj posé ay question wax de d'accord ma d'accord ci atum euh, bii di ñëw euh, ministre des finance annoncé na ab budget bi nga xam ne arrêté na ko ci toll ci 4589 euh, virgule 15 milliards ci suñu koppar maanaam yokk na lu toll ci 379 virgule 9 milliards francs CFA naka ngay expliquer boobule yokkute et est-ce que ndax am na ak lien ak période basse bi nga xam ne moom la ñu nekk muy di coronavirus. yaakaaru ne mbas mi a tax ba dootuñu amati xaalis te bu suñu di ñëw day wàññi wàññeeku bu baax a baax a baax xam nga loolu lan la ñu yaakaaroon. Mhm. mais euh, gis nañu ne du loolu au contraire prix bi dafa yokku. Mhm. buñ ko méngalee ak bi woon daaw. Mhm. waaw léegi xam nga eta euh, xaalisam fi muy jóge mi ngi mi ngi sukkandiku ci ñaari tànk tànk bi mooy tànk bi mooy am na ñeneen ñu ngi xaalis. et les ressources internes ak externes. mais principalement douane ak impôts mhm. mais gis nañu ne douane def nañu liggéey boo xam ne dafa mu ci ay dañ koy wax ci temps yi. Mhm. indi nañu soxla xam ne dañuy wax comparaison crédit enregistrement annuel. Mhm. mooy nga comparé ñaari at mais ci même période. ci ci même mois wala ci même trimestre. buñ ko def rek gis nañu ne douane indi na loo xam ne ëpp na li ñu indi woon daaw ci même période. alors xam nga loolu kon lu baax la. ba pare boole ci euh, suñu nawet baax na ren mbéy mi baax na gerte gi euh, vraiment dañuy yaakaar nañ sax dinañu am loo xam ne ko am. Mm-hmm. Euh, dina ci at yi passé mm-hmm. sans compter léegi aussi ñi nga xam ne président Macky Sall mi ngi doon dox pour ñu dindi li ñuy ameel bor bi nga ameel. Mm-hmm. ay privé. ñu ngi koy dox. ñu bari ci jëmooguñ ci mais jëmoo nañu au moins ci dara li ñu waroon fay dañ koy aj mhm. ba deux mille vingt et un mhm. maanaam li ñu waroon fay ren duñ ko fayati mhm. loolu aussi euh, tax na ba nga xam ne ba pare nag euh, quand même am nañu lu ñuy wax capacité de résilience mën nañu vraiment dékku am na ñoo xam ne bu doon ñoom xëy na loolu bu dalee seen kaw du ñu jóg du sax mën a euh, sëggi mais ñun am nañu dékku boo xam ne vraiment suñu réew def na ko jógaat nañu du dëgg mm-hmm. euh, voilà donc euh, ñu euh, aussi sargal ñi nga xam ne ñoo nekk ministère des finances et du budget mm-hmm. commencé ko ci ministre bi parce que mm-hmm. aussi ay jàmbaar nañu ñu ngi def seen liggéey wax dëgg yàlla da nga xam ne xëy euh, loolu yëpp li yëpp ak ak loolu moo indi li budget bi yokku. Euh, monsieur Mbay niveau endettement dëkk bi day dépendre ci li nga xam ne mooy budget ak ressources yi nga xam ne euh, moom la am boobule budget mu mel ni xaalis la bu bu fi toog est-ce que Sénégal tey risqué wul endetté wu. waaw léegi ñun dañu bokk ci kuréel bu ñuy wax union économique et de l'ouest africain mooy UEMOA. Euh, n'est-ce pas euh, dëkk yi nga xam ne ñoo nekk euh, en Afrique de l'Ouest mm-hmm. ah, dafa am ay critères de convergence yu tëral mm-hmm. ñu ne sa déficit warul passer trois pour cent mm-hmm. ñu ne sa endettement warul passer soixante dix pour cent mais soixante dix pas du budget mais du produit intérieur brut du PIB mooy da nga xam ne Sénégal bi ñu bu mun di doon du dëgg léegi nag mbas mi moom dafa bett ñëpp mhm. yëpp dafa leen bett mhm. am na ñoo xam ne da am na lu ñuy wax loolu sax boo waxal ma ko sànq ci français mhm. am na lu ñuy wax planche à billets am na dëkk yi nga xam ne seen ñoom seen euh, seen koppar dañu am seen euh, monnaie autonome indépendant monnaie ñoo xam ne duruñu ak ñoo nga xam ne dañu dépendre ci français yooyu dañu def dañuy wax planche à billets président day téléphone ministre des finances ne ko demal nga imprimer xaalis bu bare bare nga sànne ci marché bi pour ñu mën ci fay bor yi nangam nangam mais nag dafa am aussi lu muy jural ëllëg maanaam économie bi foog mu euh, doubler li liggéey pour mën a dékku xaalis boobu ñu ñu génne lu bari. Mm-hmm. mais ñun mën ñu génne planchage bi ak xaalis dañ ko bokk ak ñu bari. Mm-hmm. donc léegi bu ko defee foog ñu endettement population pour ren war mën a dépenser soixante dix pour cent. Mm-hmm. juróom fukk ak ñeent la je crois waaw mën na ko dépasser même suñu déficit ñu ne 3 pour cent la. Mhm. war na mën a dem ba 6 pour cent te je crois sax ci yooyu la ñu nekk. dëgg la léegi bu ñu euh, yaakaaree xaalis xam ne aussi tawul euh, même bu fekkee ne sax suñu bor dañ ko aj ba déwén. Mhm. foog ñu lebat. parce que li ñu yaakaar lu bëri bëri ñëwul. Mhm. te bu ñu lebee foog ñu bon euh, creuser pour cent mën na dem ba 6 pour cent. mais mais loolu. dafa nekk cas boo xam ne spécial la quoi vraiment parce que mbas ken kenn kenn waaju ko woon. Mhm. dafa bett ñëpp dafa bett ñëpp. Mhm. te kenn xamuloon ne sax dana am euh, boobu impact boobu yàq-yàq ci koom bi donc voilà bu ko defee comprendre loolu. Mhm. mais nag ku mais nag nit ki aussi booy booy euh, lépp. da loo xam ne di ko dugal foo xam ne dana jur njëriñ. dëgg la da ngay jur ci investissement yoo xam ne dana am retour sur investissement. mais doo lépp rek pour lépp aussi moo tax ñu wax dañuy wax dañuy wax encadrer dette bi. endettement bi. Mhm. fii amoon na. Mhm. lu ñuy wax cadre de viabilisation de la dette am na sax beneen kuréel bu ñu taxawal temps yi. Mhm. <coughs> jotu moo ko woon gëstu bu xam ne ci loolu la lay yëngatu. maanaam encadrer ñu ñu ñu ñu encadrer endettement bi quoi. voilà waaw du du du rek parce que mu am nga foo mën a leb da ngay leb aussi du ma la neexee. dëgg la waaw mais mais ba léegi war nañu mën a aussi euh, euh, comment àbb war nañu ut ay bor parce que aussi dëkk noonu la borom kër noonu la entreprise noonu la état aussi noonu la. du mm-hmm. du lépp nga mën a am ci yow sa bopp. Mm-hmm. foog yenn saa yi aussi ngay leb leb dafa ci activité économique. kon monsieur Beye mun nañ jàpp Sénégal am na politique endettement bu mesuré wu. ah ci ma gis boog ba léegi de mm-hmm. yaakaar naa ko banque mondiale sax wax nañ ko ak ak surtout fonds mais mais wax nañ ko mais dañuy artu Sénégal nee leen waaw seen entraînement baax na mais ngeen def ndànk quand mhm. parce que mi ngi yéeg et cetera xëy na bu passé soixante dix pour cent euh, da nga xaw a doy waar parce que UE moo wax soixante dix pour fay mhm. tamit day day fekk tamit yow nga am loo ko mën a fayee aussi mhm. day fekk ci sa budget nga am xaalis bu takk boo xam ne boo ñëwee di nga ci mën a fay sa bor ba pare euh, dugal ko fi nga xam ne moom nga ko waajaloon ci sa budget ci investissement ci fonctionnement yi loolu loolu loolu lay mën a demee. Mhm. mais boo boo boo lebee ba pare si mënoo ko fay kooku tamit day doon dara affaire. Mhm. moo tax fonds monétaire bi nga xam ne dafa am li ñuy wax ICPE instrument de coordination de la politique économique. Mhm. dañuy gunge donc ñoom yenn saa yi dinañu moom la wax tirer la sonnette d'alarme maanaam nit yenn saa yi bu xawee bëggee passé. Euh, ligne bi nga doon ah taxawalkat wala ah defal ndànk parce que yaa mu mel ni rek euh, askan waa ngi tiit ci ab euh, deuxième vague de contamination coronavirus fii ci Sénégal d'ailleurs njiitu réew Macky Sall souligné na ko fële ca ouverture forum numérique yan conséquence économique la mun a am fii ci suñu dëkk bi. waaw président li def lu baax la parce que aussi njiit ci loolu lañ koy xaaree maanaam. Euh, mbas mi ñëpp yaakaaroon ni dana yàq Afrique OMS mm-hmm. euh, waxoon na ko dëkk yu bëri wax nañ ko mais yàlla def na ne liñ ci li ci li ñu doon séentu ci yàq-yàq yooyu yëpp kenn gisu ko mm-hmm. au contraire ñun sax ñoo ñoo gën a ci génn dëkk yu mag yi mm-hmm. dëkk yu mag yi nag ak ñuy wax deuxième vague maanaam kii bi dafay ñëwaat encore feebar yooyu toujours noonu la day metti dem bay bëgg jeex mais jékki-jékki rek ñëwaat. moom la ñuy wax deuxième vague am na sax ñuy wax ak troisième vague. Mm-hmm. en Europe am na médecins yoo xam ne nee nañu toog ci année bi yëpp ba deux mille ba sax diggi deux mille vingt et un a troisième ak quatrième vague. Mm-hmm. mais ñun yàlla may nañu quand même vraiment dékku nañu mbas mi góorgóorlu nañu ñu sargal quand suñu médecins yi sargal ministère de la santé ak président la république ñi nga xam daal ñoo koy gérer. Mm-hmm. parce que mbas bi dem na ba wàññeeku. mais nag gis nañu fan yi mi ngi ñëwaat nañu ba zéro 9 pour cent de positivité de taux mm-hmm. ñëw 1 virgule nangam pour cent mais tey ñu ngi ci 3 pour cent ñu mm-hmm. ngi yéeg mm-hmm. donc loolu loolu la président gis bu ñu deful nag mun na ñam deuxième vague surtout que man sax bokkoon naa ci ci ñu wax ne dama ragal ne bu ñu demee ba mois de décembre janvier ak sedd bi mën nañu am deuxième vague donc bu ñëwaatee deuxième vague ndagum euh, lu njëkk li feebar bu njëkk bi euh, bi ñëwoon mois de mars avril ak yooyu moo ñu xaw a sonal même bu fekkee ne sax ñi ci loru bariwul encore que ñuy euh, benn nit ku dee sax euh, bari na mais day yàq koom-koom bi suñu koom ci économie informelle rek lañ ko wékk maanaam ñi nga xam ne dañuy xëy di góorgóorlu lu cetera nangam nangam. Hmm. tailleur yi menuisier yi ak euh, même sur le plan de la musique ñi xam ne dañuy dañuy tëgg yi ak yooyu nga xam ne. Hmm. bu confinement amee wala couvre-feu mais duñu mën a génn te bu ñu génn. du ñu am lu ñu yóbbu seen kër. bu ko defee koom bi day yàqu mm-hmm. complètement donc nañu góorgóorlu. Mm-hmm. ba deuxième vague boobu nañ ñaan si yàlla sax mu bañ a ñëw. Mm-hmm. mais bu fekkee ne mënul bañ a ñëw il mu ñëw nañu fagaru comme ni ko président waxee ñu continuer di appliquer mesure barrière yi. di sol masque di raxas loxo di diw di am lu wax distanciation sociale physique. waaw loolu lu am solo la. ne nañ ko nañ ko wàcc léegi nag balaa sax mu ñëw. gannaaw euh, commerçant yi euh, ban impact économique euh, lakk yooyu la mën na am ci dëkk bi. mais lakk yooyu day yu bari xam nga nee naa leen léegi suñu économie mm-hmm. informelle la maanaam dañuy reposé wu. ci ñi nga xam ñun suñu yu mag yu kii am na yu mag a mag ay jaww bi ak yooyu mm-hmm. ak yeneen marché mm-hmm. nga la ah, a mag lay indi koom bu mag a mag la ci diggante réew yi mais am na ay marché yoo xam ne dafa nekk ci dëkk yu mag yi mel ni Dakar Kaolack Thiès Ndar et cetera mm-hmm. yooyu gis nañu ne temps yëpp mi ngi ay mi ngi rek te lakk bi nee nañu en tout cas experts yi ko xam nee nañu installation courant yi électrique yi moo baaxul mm-hmm. ni ñu koy installé baaxul mooy indi lakk-lakk yi ay indi ay court circuit wala nit ñi di def ay branches yoo xam ne eh, du branche yu normal mm-hmm. kenn jox leen autorisation dañuy sàcc def ay branchement guddi lañuy sàcc def ay branchement wala ñu ko benn compteur boo xam ne pour benn cantine la lu mat six cantine bokk ko mhm. am na ñoo xam ne sax dañuy am seen table ci biti capp euh, branché ci ci benn compteur xam nga yooyu baaxul mhm. war nañu changer suñu comportement mhm. lu ñu def ñu def ko ci yoon du dëgg installation na ngeen ko def ba mu normal parce que sinon dana yàqu koom bi te koom bi bu yàqoo ci marché yi euh, euh, kenn xamul fu ñu koy jooyee parce que ñi nekk ci marché yu bari bari duñu am assurance. bu ñu amoon assurance sax bu ñu amee yàqu-yàqu assurance dina leen fay dina leen dédommagé. Mm. mais amuñu assurance. bu ko defee day yàqu koom bi. waaw monsieur Mbaye Rewmi FM mu ngi lay sant di la gërëm ci disponibilité bi. waaw jërë ngeen jëf maa leen di waa di fàttali yow économiste nga enseignant chercheur.